ma wax sénégalais yi rek ni li nga ma laaj sànq dafa nekk loo xam ni dafa betteetul parce que dernier rempart bi nga xam ni moom la justice du Sénégal doonoon dafa rot di conseil constitutionnel defee la mu def kero keroog waroon di ir di aar fi mu ne dafa mel ni ils sont aux ordres et su ngeen seetloo li gën a grave mooy le ministre de la justice se comporte en procureur gis nga saa yu génne wax rek xam leen dans quel sens le parquet et les et la justice va aller vont da ngeen di jàpp lool da ngeen ko dégloo di leen seet loolu saa yu problème amee c'est le ministre de la justice qui se prononce et en fonction de ce qu'il dit c'est ainsi que le cours de la justice va va donc loolu moo tax suñu camarades yi léegi dañ leen def ay otages parce que dañ doon ay député que ce soit Déthié que ce soit Mame Dara que ce soit Abdou Bara Dolly que ce soit ay dara que ce soit les deux Guy Marius Sagna et les deux cent autres camarades liñ leen teyee tey dootul flagrant délit li gars yi naan flagrant délit continue lay nuru parce que tey raison bi ñu évoqué pour reporter ko naan dañuy def séance spéciale ak dañuy wut sal xam nga dëgërul parce que soo fekkee problème mu saal dong la muy deux cent cas flagrant délit ñëpp xam nañ ne lu gaaw la donc mënoon nañu def ñële ñi jiitu ñu def leen cent yi ñi ci des ñu dem saal boobu ñu wax saal boobu mën nañ fa dem liggéey fa donc loolu muy wane ni c'est du dilatoire ce que cherche le pouvoir à faire c'est maintenir nos camarades dans les lieux de la dans les liens de la détention dañu bëgg dañu bëgg a yàggal nooteel bi bëgg a atteindre seen cerveau ak seen détermination may wax ni du wàññi dara ci seen Pastef ci seen njàmbaar ci seen takku pour xeex parce que li ñu gëm mooy ñoom ñu ngi ci dëgg mais dañu bëgg Sénégal gépp jàpp ci li nit ñi def le 17 déjà dañ ko rafetlu parce que le 17 jouru bañ la woon nit ñi génn nañu xeex nañ ñu waat leen le 29 incha allah je suis certain que ñu génn mais lii teew mooy suba le concert bi ñu woo gaay yi tey tey ci guddi tey tey ci guddi xam nga ñu ngi ci fête de la musique nañu defal concert gaañi ñu xam ne réew mi askan wi dañu sonn dañu tàyyi dañu dammata daañ ko wane ñuy wax tey su vingt jotee ñii nañu nekk ci mbedd mi ak ci tali bi nañu klaxonné ñi ci kër yi nañu tëgg sabar ba mu xumb